Kebanyakan itu Vigilaran SM. Abonen, teklik di post notifikasinya. Khar sunyi video. Jadi. Olaf Ndiaye nee na ku saraxul gumba man ko baye kel wanam waaye ki nga xamante ni moo di Macky Sall man nañ ne tay ji nak biñ xeye ci journal bi nga xamante ni moo la tribune lañ fi gis dal ni rewut ak lolu ben yoon ndax ne kat mu ngi xamal que ne ki nga xamante mooy président Macky Sall daal lim teg bëtam yépp daal jamono ji mooy jël moomelu ki nga xamante moo di président Ousmane Sonko ginnaaw biñ ko defee mandat dépôt mu def grève de la faim ba sonn lool yóbbu ko urgence fi nga xamante moo di réanimation hôpital principal te ba léegi nii amuñ ci moom benn saafara boo xamante ni mën naa dellusiwaat wér garam gi ginnaaw loolu tamit ñëpp ñoo xamante ni am nañ baat ci réew mi daal di ci wax pour Macky Sall daal di koy bàyyi waaye wax seen wax jooju daa mel ni day mujje naax saay ndax Macky Sall jëfewut ko benn yoon mu nu Mountakha daal di koy yónnee ak tàndarma pour mu daal di dakkal grève de la faim boobee mu nekk. waaye ba léegi ci xibaal yuy jot mooy que ne Ousmane Sonko tàndarma jooju noonu mënuñ see jot ndax waa yeewi askan wi mënuñ koo gis ba léegi waaye président Macky Sall yemul loolu ndax buñ surn buñ sukkandikoo ci journal bi comme ñu ko waxee léegi nee na daal ki nga xamante ni mooy président Macky Sall daal lim teg bëtam léegi jamono ji mooy jël alalu ki nga xamante ni moo di président Ousmane sonk ndax nag yàlla gumba nag boo ko saraxul mën koog bàyyi ak yàlla waanam